Thierno Alassane Sall qui a introduit. Thierno Alassane Sall Alassane Sall est un est un est un homme politique Thierno Alassane a utilisé les les les de la loi. il n'a fait que ça et c'est son droit absolu moo tax man mënuma comprendre que des hommes politiques di ko def ay reproches di ko def un mauvais procès man mënuma comprendre loolu nit ki nga xam ne jël na responsabilité utiliser li ko loi bi may. ñu ko koy reprocher même des gens de l'opposition d'autant que c'est une démarche qui lui ressemble même des gens de l'opposition naan woy pourtant dégg naa fi sax ñu naan si affaire Karim bi waa lii bu ñu ko defee affaire discrimination la affaire euh, kii botte de compte la euh, day indi séjour dans la nation mais waxu caaxaan yooyu waxu caaxaan mi ñu wax affaire bi xam nga da affaire bi ce n'est ni de la ce n'est pas de la discrimination c'est un simple problème de texte de loi de l'application d'un texte de loi et la loi elle est faite pour être appliquée le principe booy dura lex sed lex la loi est dure mais c'est la loi